la coach Matar Mbodj maa ngi liggéey ak fondation bi ñuy wax Women and Youth Foundation Co bon li tax ñu ñëw fii tey pour euh, côté environnement la ak dimbali xale yi leen ay dons pour euh, seen ouverture école moo tax ñu ñëw tey lycée Kër Moussa jàppale len ci côté No la non mom Fatou Diagne li gis ci mom moy amna engouement te bëgg na lu muy def te ñëmé na dimbali nit motax foundation mu créer fondation bi pour dimbali nit yi motax mu jaarale ko si fondation bi si côté yëpp la nak bul foo ne si côté environnement dimbali xalé yi ak jigéen yi kese mé ñëpp ci biir lañu bok donc moo ñu ñëw fi ni pour Kër waaw instant bi si fondation mi ngi si ay projet yu bëri moo tax ñu dañoo commencé nii rek mais am na yeneen yoo xam ne mënaguñ si sori mais ñu koy waajal fii ak fan yi néew rek di ngeen ko gis yéen ñëpp. waaw tey tey en tant que coach fondation bi nu mu demee nii mooy dafa ñëw andi impact dafa ñëw fekk fi basket mu jaaral si basket pour dimbali yeneen nit yi loolu la nekk di def nii maintenant ñu ngi si yoon si côté basket bi. pour euh, dimbali xale yi ñu avancer ñu xam fu ñu jëm suba moo tax dañuy utiliser basket bi di ko di si créer lu bëri bëri pour avenir jigéen ak góor yëpp. waaw ñu ngi ñaax euh, autorités yi yëpp nag côté bàyyiwuñu benn côté ñu gën a jàpp si sport bi jàpp si basket bi bu baax a baax a baax loo xam ne nii ñu ngi leen koy ñaax daal ñu gën si góorgóorlu ñëw soutenir fondation bi bu baax. waaw foofu soo ma si laajee moom day xaw day ma ne xale laa fi commencé ñëw donc boobu maa ngi basket du tey quoi donc bu ñu ma nee kañ dem Kër Moussa pour programme yi nii dama si sawar torop bien vrai Fatou ñooy liggéey mais Kër Moussa ak laay ko su laay dañoo yàgg ma moom kooku si fi laa bokk presque waaw. merci. ok je vous